jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb bàkk ba jëbati na tey ñoo ngi fii ci arène nationale 10 avril 2021 euh, tey Fallou Ndiaye woo ñu fii Fallou Ndiaye woo ñu fii teg mise bi 4 millions tey defee naa ne làmb tey dina dekk ndax lépp lu nga xam ne namoon ngeen ko tey di ngeen ko gis fii ci arène nationale maa ngi seeg sëñ mi nga xamante ne l'infatigable la ah kenn moom ci ci ci ci ci wàllum làmb Wassare Lamb nag li ma koy waxee chaque jour rek lu dul làmb ñoruñu làmb dong moo ñu intéressé ba tax na tey lépp loo xamante ne nii ambiance la lépp loo xamante ni bëre la lépp loo xamante ni culture la tey di ko gis fii tey mbokk yi ci wasaare làmb ñu dëgtal leen ko ñu ànd ceeg wasaare làmb sama gaa yi ñu la ñu dem sëñ Bass. maa lay fay maa lay fay bu wér a wér waaw sant yàlla. préparation bi ak euh, la demee. waa métti rek que ñun ko ay ndaw lañ parfois di nga gis ku ñëw bëgg a dugg amul pexe pour dugg mais la mais xam nga liggéey su fekkee dañoo teg benn condition pour ñu liggéey si ñun ñëpp doo bëgg di trahir xam nga groupe bi quoi structure parfois a métti mais nag sant que comme dañ koy def tamit pour lu neex acteurs yi ak lu neex axlu làmb dañ siy dem ak cawarte quoi mais affaire moom franchement métti na mais dinañ gis depuis ci suba ba léegi yéen a fi. waaw na jëm fii ba vingt heures ba vingt deux heures. loolu. non mënul yomb organiser dafa métti suñu bi paase mu ngi jeex vingt trois heures pile. donc jàppal ne minuit lañ nar yor njaboot dañ leen fay bàyyi depuis ce sa doom du gis sa jabar du gis xam nga loolu mënul yomb mais nag alhamdulilah ba bëgg nañ ko comme bëgg nañ ko rek alhamdulilah quoi. mais waaw li ñuy xaar mooy comme tey samedi la amateur yaa ngi commencé ñëw ndànk daan feek ci kanam amateur waa wàcc ñëw ñu rempli stade bi mbayang commencé na moomoo toogagul boo yaa ngi fi incha allahu ñu dem woori ak jaamu quoi si journée bi incha allah baax na ba ci kanam ok incha allah. moo jaar naa la. yaa ngi ci mais tey naka ngeen euh, dundee événement bi tey. waaw événement bi nun ko dundee lu dul sant yàlla rek. waaw gis nañ ban ñëwee ba léegi organisation bi mu ngi tegu si yoon. waaw amateurs yi tamit ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw ça veut dire ne satisfaction ñu ngi koy commencé am ndànk-ndànk quoi. léegi gis saison bi moo ngi waaj a pause ndax defe naa ne tey bu samedi bi jàllee beneen samedi bu ci toppaat dañuy dugg ci euh, koor bi ba tax naa gars dañoo namoon làmb tey lan leen xaar ci mbëri ak amateurs yi. waaw mbëri moom li ñuy xaar si ñoom mooy fair play amateurs yi tamit euh, ñu ngi xaar comme ñu ngi ñëw waaw ñu ngi xaar ñu ñëw maximum te parce que fête la ndax euh, sargal Yékini lañ wax. te tamit Yékini def na lu ne si làmb def lu ne si làmb dóor làmb simple ça veut ne su ne tey moom la ñuy sargal ah, ferte la war a nekk fête la war a nekk tamit te tamit ñu war a dem si koor mooy war ne tamit ah, dañuy am mbégte war a tëj ah, arène nationale bi tey jublu si koor gi waaw yooyu yëpp ay satisfaction la kontaan nañ trop tamit si organisation bi actuellement ni muy déroulé daal waaw. pourquoi sargal Yékini. waaw Yékini ku ko mën ne chaque dimanche dañ ko war a sargal. waaw ndax euh, yor na roi des arènes pendant huit ba pare lutte simple li si def néew na nga gis jamono ji mbër bu ko si def moo tax moom pour man chaque dimanche dañ ko war di sargal waaw te tamit monument la si làmb monument la Sénégal wax dëgg yàlla lu sunu devoir lañ def parce que tamit ah danoo delloo buum sa kii rek noonu la demee waaw. di leen defal ba ci kanam waaw si kanam waaw waaw di bëggee site bi wasaare di leen bëggee bu baax di nuyu Basir tamit waaw gis nañ seen taxawaay si làmb gis neen tamit jamono ji yéen a ngi def lu doy waar si làmb am nañ mbégte trop si yéen daal waaw. jaajëf jaajëf. Xaadim ànd Seck sama copain. maa ngi lay ziar man nag moo frère. loolu la yow def. tey naka ngeen euh, waajee bés. ah gis nga comme ni comme dab rek Fallou Ndiaye moom xam nga bu ñëwee moom bisu ndaanaan lay def moom ndaanaan yi ñu ñaan journée bi réussir rek. est-ce que keroog euh, li xewoon fii est-ce que tey mën na amaat ndax keroog moom làmb ji dafa toj moom. lu ko raw man nan nga xaar lu ko raw. ndax Fallou Ndiaye ndaanaan la xam na lu simple. sargal yi ki ni drapeau Baol sans frontière kon loolu mënul yomb nan ñaar journée bi réussir rek. baax na ba ci kanam. maa lay bëgg di bëgg Basiirou borom Wassare xale bi daal couleur de presse moo ca man cinq minutes mu libéré la. yaa ko wax de moo ci de presse ci Sidi Basiirou du sama. est-ce que beneen micro di nga wax. Basiiroo ko moo ci de presse Basiiroo la man yàlla jaamam yàgg surtout pour suñu kubon Ndofène bi na am jaamu maa ko wax maa ko wax. mbay yi gi mbay yi gi ne fay naa la fay naa la jawriñ bésub tey ñu duppee ñu duppee ko su turandoo avant tout lan nga ciy wax. sant yàlla bu baax ku ne xam na Yaxya Diop Yékini buñ ne lépp simple rek ni Yaxya Diop Yékini kon tey buñ ko jaglee bis bi di ko sargal xool day sedd rawatina man mi nga xam te ni fan sam laa noom ma wan yàgg bëgg Yaxya Diop Yékini di ko topp mbapat ba arène. kon sama xol day sedd si bés bi tey alhamdulilah. tey sa teewaay fii ci bés bi lan la mën a représenter. lan la. sa teewaay tey ci bés bi lan la ci mën lan lañ ci mën a jàppee tey ci Mbaye Yékini. waaw luñ si mën a jàppee xam nga tey sama diggante ak Fallou njaay Sénégal ñëpp gis nañ nu mu demee di ko sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala baax. dara waralu ko lu dul làmb ak jëmm sëñ Fallou Mbacké mi nga xam moom laa gëm man dama gëm sëñ Fallou ba loo ma si sëñ Fallou rek dama lay fekk si sëñ Fallou rawatina nag bis bi di bisu Yaxya Joob Yékini kon sama xool day sedd ba pare euh, dina tax tamit ñëpp xam ne Yaxya bàyyi na bëre mais bàyyiwul làmb waaw loolu moom dina dina doon loo xam ni sedd na sama xool trop franchement. mais kenn gisagu la nu mu demee noonu lu nga ne ren kenn gisa ah non kenn gisaguma ndax daan nañ dégg mbay yi gën a tëgg mais ren kenn gisagul. waaw mais diggante Cheikh Tidiane ñaa nongolo kenn du ko laajte kooku mbay yëkkee ne ko tëgg dafa fekk nag man dama baaxawul di génn presse. waaw loolu man kii ma parce que nit ki balaa mooy balaa ngay génne presse dafa am looy taxawal ak looy waaj boo gisee waroon naa la woon ñu toog def plateau. xam nga boo xamante ni macha allah mais dafa am lu ma doon xaar rek boo xoolee suba incha allah si kattanu yàlla euh, euh, présentation bi nga xamante ni diggante Cheikh Tidiane Niang Ndongo si sam papa señ Maodo Niang journée bi suba fii la def seen premier jàkkaarloo face à face bi kon alhamdulilah. daal mën nañoo xaar suba euh, kii di ak Cheikh Tidiane Niang ñoo def fi face to bu neex. di nga gis lu doy waar incha allah te xam nga ni Cheikh Tidiane Niang Ndongo ay jinne lañu macha allah ku si nekk nag wax nga ma ni di nga jaay journée bi te di nga jaay combat bi man combat bi dama si sant yàlla xam nga daa ma sant yàlla mooy que ni man bii mooy sama ama Modou Lo journée bi bii mooy sama amba si sama tolluwaay. tëgg ku su nekk ak sa doole fu mu toll quoi te xam nga ne Mbaye Yékini moom kenn jox ko pour mu tëgg propre moyen boppam lay demee su ma duggee si jugee si deux jours kaw Gourdin ñëw tëgg euh, Ndongo Lo Cheikh Tidiane Niang kon sant yàlla bu baax a baax. incha allah ci ndax euh, wasaare jël na leen ñoom ñaar ñëpp ba ci nekk wax nga naka nga na waajee defe naa ne bu jub see tamit dinañ leen seetiwaat waxtaan ceeg ñoom waxtaan ceeg yow. waaw incha allah loolu moom ubbil naa leen bunt yëpp. benn mooy presse ngeen te da ngeen di liggéey rawatina nag suñu papa père Birahim bu fa nekk te yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may tal ak fekke loolu moom ubbil naa leen bunt yëpp mais nag mooy lu may wax rek du ma woo kenn naan ko lii wala laa mais man yaakaar naa ni tey jël nga Cheikh Tidiane jël nga euh, Ndongo mbay yekkee ne si des te di xaaraguñ la si ba léegi. waaw baax na incha allah dee la jël. kontaan naa bu baax dañ la gis euh, da nga wàcc lutte bi lan la. waaw man li du ma gan. waaw li du ma ci gan ndax yàgg naa def lii xëy na ay jafe-jafe la woon rek xam nga passe temps yaa ma gën a xam mais lu bi xam nga dafa jariñ mbiri ndaw yi quoi compétition la en même temps xam nga ñun amuñu lu dul làmb te ñu yaakaar ñun dafa bari xam nga te ñun yaakaar ñu dul làmb gannaaw yàlla di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ci quoi. la lañ mën a xaar ci yow. waa ndam daal laa andi. waaw bëgg naa daal yàlla suturaal ma ma jël ko. sama diggante samay naw la laa fi nekk samay morom te maa ñaan yàlla yàlla moom doon seen kaw waaw. jaajëf bonne chance ba ci kanam. ok eh, jaajëf. waaw. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér. mais eh, dama la gis gars yaa ngi yëngal mais yaa di xaar lan la. waaw dara sànq dama doon yëngal sax. waaw ñun moom amul ay xaar. sànq dama doon yëngal kii awul sax. mais eh, xam nga rek. léegi les choses sérieux commencé quoi. ñu la mais tey lan nga andil parce que tey dafa mel ni ndaanaan lañ ci jubbee bés muy Yékini. waaw xanaa kon liñ ko doon defee rek ñëw ak ñi ma àndal fas yéene bégal supporters yi ak amateurs ak képp koo xam ne yaa ngi dund làmb tey di xaarloo suñu dañuy ñaan yàlla ñoom motal yéene bi ndax ñun seen yite seen mbégte mooy suñu yite waaw. mais lan la. waaw loolu xëy na ñoom la rek ndaxte Olof Ndiaye. daanaka bëgg yàlla koy def si jàmm te nit ñi lépp looy liggéey si àdduna ko a sa war a am fulaak fayda am sa détermination ndaxte dafa am benn mission boo xam ne sama papa daf ma ko fi ma ñëw war a yeggali boobu kon man waruma lépp lu may def dama ñëw def ko fula ak fayda ak jom su ma paree dem nii waaw. maa lay jaajëfal. delloo ziar bu baax di leen ñaanal jàmm nag di leen wax ne yal na leen yàlla yokk ba ngeen ko si kattan yàlla di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si ñëpp si doomu aadama yëpp di ñaan yàlla ñu yàlla may ñu tëj saison bi ba dem ba or yi ba ñëwaat si kattan yàlla ak barke Seydina Muhammad jërë ngeen jëf Kaaw ziar na. delloo ziar. ci loolee. waaye dañoo gis ne affaire yi xaw na neex tuuti nu mu demee noonu. waaw sant yàlla rek. suñu yi sunu borom la quoi. du kenn moom la rek. ok mais tey lan lañ mën a xaar ci yow. waaw comme ni ñu doon xaar ci ñun rek sunu borom kattanal ñu bu baax a baax. mais lu waral nga wàcc ci compétition parce que gis nañ yaa ngi nekk ci benn tournant mais teewul da ngay ñëw fii di tooyal xaftaan bi lan la. parce que dañ ñu ko digal rek sunu per moo ñu ko digal ak waa Dalifor waaw père Tombe lépp moom la rek. yaa noonu la demee quoi. baax na ko ci kanam. Ah, jaar na. waaw maa lay delloo ziar bi naka la. Forza numéro 2 écurie Balla Gaye. waaw écurie noo tey tey noo ñëwee fii. waaw ñëw fas yéenee jël millions yi rek si barke Seydina Mohamed waaw. incha allah est-ce que dina fii laa koy teg fii laa koy teg maa la ko wax. Ah. dinañ taxawaat ma waxaat la ko incha allah bu soobee suñu borom fii laa koy teg. du la ah, may gis nga gis nga booy booy seen yaram daa tàng de. waaw mais liggéey rek li ñuy liggéey géej ak li liggéey école ba boo xoolee sax lu nekk si ñun nga xam ñun dañuy liggéey quoi liggéey rek moo wóor. looy bindu tey léegi wala lu. man maa ngi si léegi bi incha allah fas yéene koo jël. ah gis naa fi ay booy Karim Sëñ Fall booy tax booy taxuñu ma jot booy mënuñu maa yëngal sax. billaay mais li nga tax ci boobu lan la. waaw ay xarfa xuufa la rek pour maanaam nit ñi ñu wër xam nga rek waaw ma musulaay ko quoi musulaay la ah. waaw. waaw ah, baax na Forza yàlla nekk ay télé yu mag incha allah si bàyyi seen mbokk yi Franc ngi noonu ñoo ngi jàppante ñoom ñaar di damante ay Franc moo féete à droite Franc noonu. ñoo ngi naxante mbokk yi Franc tibb na suuf ñoo ngi ndenge ñente ñoom ñaar Franc bal na ko lu mu ko bëgg a def lu ko bëgg xar wala lan am na loxo ci ngemb moom Franc am na ñaari loxo ci ngemb jàpp na plaqué na ko daan na ko oh, doole Ada Boy Baol yi moo ñu féete à droite ñoo ngi liwaatoo njool lu mu def nii njool daan na ko njool daan na ko njool <laughs> bi est juumul waa abit bi est juumul ñoo noonu ci diggante Ada Boy Baol Ada Boy Baol war na ko ndomba aada Boy Baol woon na ko ndombo da lay daan wala daanoogul takk na ko daan na ko Ada Baol daan na ko mbokk yi Ténor bu Diourbel moo ñu won ginnaaw ñooy noonu ci digg géew bi bàyyante waat nañu maa ngi gis ki nga xamante ni nii mooy Gora Sock ci digg géew bi mbokk yi Papa Boy Djiné ngi noonu moom lañ jaakaar lool ñoo ngi lewaatoo mbokk yi Franc bëre na fi léegi ba am fi ndam war na ko ndomba laay Tonnerre lu muy def nii xale ba war na ko ndomba dana ca génnam du ca génn laay waaye mbokk yi Tonnerre moo xaw a doole génn na ca ko waat na jàkkaarloo waat ak moom. lambu ji nekkul ñu ay gan yàgg nañ ci lambu ji ay at at at yëpp ci lambu yàgg nañ ci donc yéen ñi nga xam ne boo xoolee te jamono ba tey ba du baax. abi sifle na mbokk yi Gora Sock wan ginnaaw eh. Gora Sock koy ëttal Gora Sock ci tànk yi dem waaye booy bi daa jël na tànk ba Gora jël na tànk ba ba koy yennu ba ci kaw doo suuf waaw dool doxul jàmm doole doxul jàmm mbokk yi Gora Sock daan na ko. Habib sifflé mbokk yi Papa Boy Djiné moo ngemb moo ngemb lu jaune li Papa Boy Djiné noonu moo ñëwoon ginnaaw. Papa Boy Djiné. daan nañu ko mbokk yi général Malika ngi noonu moo jàkkaarloog ñun général moo ñu woon ginnaaw ëñ na ko plaqué na ko daan na ko vite fait bien fait général Malika noonu vite fait bien fait mu daanu mbokk yi mbokk yi acteur lañ jàkkaar lool acteur koy kàmbar ñoo ngi lewaatoo acteur lañ jàkkaarlool mbokk yi daw na jël ko fàq na ko da koy mbot da lumu koy def moo ngi koy mbot jógaat nañu ku nekk sa ñaari ci ngemb oñ na ko kal na ko waaye Calblaas téq na ko acteur téq na ko daan na ko acteur daan na ko mbokk yi abi na ci diggante Bulldozer Buldozer jël na ko plané ko na ko léegi mu bañ ca xabal ba daa ca xabal ba moo ëñ ëñ na ko ëñ na ko ca xabal da daanu daanu na daanu na jël na tànk ba jël ba da lay daan jël na tànk ko mbon na ko daanu na daanu na waaw vite fait bien fait Mbour Ndambe Kaw Gourdin Kaw Gourdin Mbour Ndambe laay combat bu neex Kaw Gourdin sàcc na ko léegi Kaw Gourdin Mbour Ndambe Kaw Gourdin Mbour Ndambe Boy Jules Boy na fële mbokk Boy Jules Kaw Gourdin Mbour Ndambe Kaw Gourdin jël na tànk Mbour Ndambe lu mu waaye Mbour Ndambe lu muy def nii yéex ko Mbour Ndambe yéex ko Mbour Ndambe Kaw Gourdin <laughs> Mbour Ndambe Kaw Gourdin Mbour Ndambe ba di nga ci génn 4 appuis 4 appuis 4 appuis Kaw Gourdin nee na ko ci biti jël na tànk ba da koy daan jël na tànk ba tegal ko 16 jël na tànk ba eh 4 appuis jeex na général a noonu général a ngi noonu ci ambiance lamb jaa ngi noonu ñoom ñaar ñoo tasoon Zambala a ngi noonu mbokk yi Zambala moo daanoon Général Malika Zambala nee ambiance baa ngi noonu mbokk yi Yaxya Jóob a ngi noonu taxabal da koy daan oh, oh, oh daan na ko faax na ko faax na ko 4 appi daan na ko non du góor soog de déq na ko doon na ko tànk daan na ko daanoogul war na ko laay daan na ko mbokk yi ñoo noonu Ada Boy Baol Franc tasawoon nañ fi Franc éliminé ko waaye tey ñoo tasawaat ñoo ngi noonu di def seeni débat déeb abit baa ngi naan ñëw leen ci digg géew bi ngi noonu di dem Franc Ada Boy Baol li làmb la mbokk yi combat bu naa neex ngi noonu Ada Boy Baol am na lu mu ko joxoñ léegi tax ko ci ndigili ci diggante Ada Boy Baol Franc dafa mel ni ñoo ci troisième tour bi maa ngi gis kooku di junni tibb na tànkam yóbbu <laughs> Ada ah, Boy Baol Franc Ada ah, bi sifflé na abi bi sifle na ci Ada Boy Baol Franc waaye mbokk yi boy xool kii di Franc dafa mel ni moo xaw a sàcc tuuti doole kii di Ada Boy Baol ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Ada Boy Baol Franc Franc à Ada Boy Baol à Franc à gauche Ada Boy Baol à ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Ada Boy Baol Franc xamante nañu mbokk yi ñoom ñaar Ada Boy Baol moo ngi nekk écurie Dóor Dóoraat Franc moo ngi nekk Parcelles mbooloo waaye ñoom ñaar ñëpp mbokk yi Parcelles lañu dëkk waaye gis ngeen tey làmb ji làmb jaa ngi noonu Ada Boy Baol Franc Ada Boy Baol Franc mbëri ñoom Basiru bi dañ koo daan Tanor dañ koo daan aada Boy Baol Franc Franc fàq na ko léegi waa Ada Boy Baol daa dangu ba dee ñëw fekk si ko mbokk yi nenga nente nañ Ada Boy Baol Franc Franc da koo bëgg a takk ah, aada bañ na fàq na ko léegi bëgg a jàpp ci ginnaaw ngemb li aada booy bawal fel loxo ba ñooy noonu mbokk yi ñoom ñaar aada booy bawal Franc Franc moo ñu féetee a ah, moo ñu ginnaaw aada booy bawal lañ jàkkaar lool aada booy bawal tibb na léegi suuf Ada ah, booy Baol Franc tool ni dañuy dañuy naxante mbokk yi jàpp loxo bàyyi Franc fàq na ko léegi Ada ah, fayu Ada ah, sëgg na ba moom Franc da koo bëgg woon ndombo Franc da koo fàq léegi koko tànk bi aada bañ Franc aada bool combat bi du yomb Franc ko mujjee daan fii éliminé ko par demi-finale daje ki nga xamante ni nii mooy général Malika daan ko final waaye gëm naa ne tey du yomb arbitre bi àtte jox na avertissement ki nga xamante ni mooy Ada Boy Baol dégg nga ba bañ nañu mbokk yi ñoom ñaar ñëpp taxaw avertissement bi du yoon noonu la ko gars gisee dégg nga leen Ada Boy Baol Franc Franc da koo bëgg a woon ndombo Ada Boy Baol dafa mel ni dafa xam loolu mbokk yi Ada Boy Baol Franc Ada daw na buuxo léegi daw jël na ko Ada jël na Franc Ada jël na Franc Ada jël na ko Franc zongale na ko zongale nga ko dégg nga public ba dégg nga public aada da ko bëgg a waaye aada booy boo est-ce dina yomb aada nga koy accéléré zongale ko la bëgg waaye est-ce que Franc aada booy bawol ñoom ñaare noonu aada booy bawol à gauche Franc à droite aada booy bawol defal ndànk ki ngay bëreel dafa am expérience zongale ko waaye dafa diis ki ngay bëreel daa am expérience des ba waaye Franc ne tekk di ko bàyyi muy liggéey Franc Ada Boy Baol ñooy noonu Franc koy pousse dina ko daan expérience expérience expérience oh, daan na ko junne takk na ko takk na ko takk na ko daan na ko takk na ko takk na ko combat bi yàgg na mbokk yi Tekno Kéré 16 day daanu daan na ko waaw Ilimane Diop képp kuy président Go Sock moo ñu woon jël na tànk ba eh, lii gaaw na de Go Sock jëlaat na ko rëcc na Go Sock añ na ko wër na ko ndomb oh da lay daan doole. doole doole doole daan na waaw daan na ko. abi ah, sifle na ci diggante général Malika ak général Malika moo ñu woon ginnaaw lañ jaakaar lool abit àtt Malika lañ jaakaar lool. moom la ñu woon ginnaaw mbokk yi acteur lañ jaakaar lool général Malick acteur biij na ko léegi moom général ëñ na ko acteur rasu na général takk na ko da koy biij lu mu ko bëgg a def hee général général Malick acteur moo ngi koy añ braqué da ko braqué doon na ko ci suuf général Malika daan acteur Zambala Zambala daan na ko léegi eh Zambala. Libidor Libidor lañ jaakaar lool. Libidor a noonu. waaye mbokk yi du Libidor bu Libido moo ñëwal ginnaaw moo ngi koy manœuvrer plaqué na ko wër na ko ndombo wër na ko ndombo Libido wër na ko ndombo waaw ah, doo ci génn doole doole doole Libido yee daan na ko eh kal na ko kal na ko kal na ko kal na ko daan na ko tëdd na tëdd na vite fait bien fait nee na ma. mbokk yi Franc ngi noonu ci diggi géew bi Franc wa ginnaaw Franc ngi noonu Franc koy dóor bopp takk na ko takk ko wër na ko ndomba wër na ko ndomba nu mu koy def na ko Franc jàpp ak na tekk Franc ngi noonu Franc lu muy def nii sigil na taxaw Franc lu muy def nii wër na ko ndombo bi sax dafa yàgg daan na ko jàpp na tànk ba jàpp na tànk ba téq na ko da daan waaw Gora Sock ngi noonu arbitre bi sifflé na Gora Sock moo ñu wan ginnaaw Gora jël nañ tànk ba dugg na génn jël na tànk ba jël na ko nee na ko coppet lu koy def wër na ko ndomba daan ko wala daanoogul daan na ko wala daanoogul Gora daan na ko noonu di yàggaayu waaw mbër doole wër na ko ndomba seen combat bi dafa yàgg xale yi seen combat bi dafa yàgg ñaari wër ndomba laa fa gis daan na ko waaw Zambala Zambala Zambala woon na ndomba xale ba baadu ko yenu daan na ko doole Zambala daan na ko Tony Général Malika Tony Général Malika Général Malika yaa ngi daje xale bu mën a bëre Général Malika Tony Général Malika Tony Tony Général Malika mbokk yi Tapha Tine ngi noonu Tony Général Malika Général Malika Tony Général Malika Tony Tony Tony defal ndànk Tony defal ndànk Tony Général Malika Tony Général Malika Tony Général Malika Général Malika Tony Tony defal ndànk général Malika Tony général da ko bëgg a añ waaye Tony a rasu Tony général Malika tooni général Malika général Malika général Malika Tony général Malika Tony daa mel ni ku bëgg a dem waaye général koo bëgg a jàpp général Malika Tony eh général looy def nii ëñ na ko Tony bañ na général Malika Tony xar na ko xar na ko général Malika Tony Tony ngay bëre dégal public ba général Malika Tony général Malika xale bi nga daje dafa mën a bëre koo koy Tony Général Malika Général Malika Tony Général Malika Tony ñoom ñaar général Malika Tony Tony rëpp na léegi jógaat général Malika Tony ñoo ngi bëre eh, Malika door ko léegi tànk Tony samp loxo jógaat général Malika Tony général tegal na ko 16 Tony génn na ca dégal ba général Malika Tony Tony dafa mën a bëre mbokk yi général diggante Général Malika Tony maa ngi stade maa ngi Tony Général Malika bëre nañ fi léegi combat bu neex bëre nañu ba waaye général mbokk yi doole la ko bëgg jaay waaye xale bii di Tony ndaar la ci wàllu bëre général Malika Tony général Tony général koy ndengeñ général ndengeñ na ko général ndengeñ na ko général ndengeñ na ko général defal ndànk général defal ndànk général jàpp na benn loxo ci ngemb général Malika Tony général da ko xaw a ëpp tuuti doole général Malika Tony mbot na ko ko Tony jugaat Malika Tony Général Malika bon na ko Tony daa bañ Tony bañ na Général moytul Tony doon la ci say effort fàq na ko fàq na ko fàq mbot ko moo mbot Général Malika Tony Général Malika Tony Général Tony daan na Malika Tony daan na Malika Tony daan na général Malika Tony ngi noonu Tony ngi noonu eh Tony daan na Malika eh Tony daan na Malika général dafa jaaxle. Tony Libidor Tony Libidor. Tony Libidor Tony Libidor tegal na ko takk na ko Libidor takk na ko Libidor takk na ko dangay tëdd oh, da ngay tëdd teg na fes Tony daanu na Zambala Goro Sok Zambala Goro Sok Goro Sok moo ñu woon ginnaaw Zambala la ñu jaakaar lool Zambala Gosok eh Gosok jël na tànku Zambala Gosok jël na tànku Zambala Zambala jël na ko Zambala daan na Gosok daa ba plaqué ko mu daanu Zambala daan na Gosok. Boy noonu ñoo ngi takk na ko Boy Jules Boy Jules woon na ko ndombo Boy Jules woon yónn na ci kaw doon suuf Boy Jules daan na ko Boy Jules a noonu xale Pikine baa ngoog Boy Jules a noonu mbot na ko oh, yaa xam yaa daanu Elimane Diouf Franc abi bi asena jox na avertissement Elimane Diouf jox avertissement ki nga xamante ni ni mooy Franc Libidor Zambala Libidor Zambala Ilimane jël na Franc waaye Zambala mbokk yi ñaari demi-finale yaa ngi noonu ñoo ngi fii ci arène nationale il est 22h44 23h moins jox nañ avertissement ki nga xamante ni nii mooy Libidor Ilimane Franc arbitre bi siflewaat na. Libido Franc mbokk yi moo nekk noonu Franc Elimane Mbok eh Zambala añ na ko léegi bu ko plaqué waaye Libido dafa bañ Zambala añ na ko léegi Elimane Elimane saqata na léegi ki nga xamante ni mooy Franc Elimane Zambala Libidor mbokk yi ñoo ngi noonu yaa ngi ci digg géew bi Franc Elimane Franc moo ñëwal ginnaaw Elimane lañ jàkkaar Franc koy ëñ bal na ko ñaar loxo ya Elimane bëgg a jàpp waaye jàppul arbitre bi àtte na Zambala zongale na ko léegi Zambala Zambala Libidor Zambala zongale na ko léegi waaye Libidor dafa diis mu wàcce waat ko Franc ak Ilimane léegi ba mi-temps Zambala Libidor Zambala Libidor mbokk yi ñoo ngi ci demi-finale yi mitaan nañu ñoom ñooñu ñu ñëwaat ci ki nga xamante ni mooy Limane ak Franc

Ilimane Franc Franc kor na ko Ilimane Franc Ilimane Franc jël na ko mu wër la ndombo Ilimane Franc Ilimane tey dafa décidé Ilimane tey dafa décidé baa ngi jàpp ci loxo bi Elimane Franc beneen demi-finale baa noonu ci diggante Zambala ak Libidor Zambala Libidor Iman Franc Franc wër na ko ndomba wër na ko ndomba oh daan na Franc daan daan na ko Franc dem na final Franc dem na final Zambala Libidor Zambala Libidor eh Libidor fàqat na ko Zambala Zambala wër ko ndomba caxabal nañ ko Libidor Zambala buddi na ko wër na ko ndomba wër na ko ndomba Libidor Libidor daan na ko Libidor daan na Zambala mbokk yi bi final bi Franc Libidor la dégg nga ko Zambala nee na naa ko juróomi yoon. mbokk yi final lese baa ngi noonu Boy Jules Bassirou Sow Boy Jules moo ngemboo ngembul weex li tent bopp bi Bassirou Sow moo ngemboo ngembulu bees li taxali ko waat nañu léegi Bassirou Sow Boy Jules Boy na jël ko wër na ko ndombo daan na ko Boy Jules daan na ko Boy Jules daan na ko Boy Jules daan na Basirou Sow Boy Jules ziar naa. delloo ziar. mais tey daa mel ni neex na. waaw sant yàlla. mais fan yii yëpp gis nañ la ngay ñëw mais affaire yi du neex tey nga ñëw jël affaire bi nu mu demee noonu. affaire bi noonu la dañuy sant rek dañ daal ñëw di ñaax tey ñu ñëw xam nga am nañu kon nañu sant yàlla bu baax a baax. yàlla dafa mel ni da ngaa dolli cere yokku gis nga affaire liggéey la rek lamb lañu am ay ay waa Kër Fall laay bare baa ngi noonu mbokk yi si diggante Libidor bu Grand Yoff ak Émile François Gomis Franc Libidor. tourna Fallou Ndiaye mise bi 4 millions la mbokk yi il est 23h04 10 avril tey ñoo ngi fii ci arène nationale Libidor mbokk yi moo daan Zambala Franc daan Elimane demi-finale Libidor Franc ñoo tase final mbokk yi final baa ngi noonu Franc Libidor Franc à gauche Libidor à droite Franc léegi Franc mbokk yi moo ñu wan ginnaaw Libidor lañ jàkkaar lool Franc Libidor Franc Libidor ñooy noonu mbokk yi tegante nañu boppu Franc Libidor Libidor Franc tey làmb mbokk yi Boy moo jël final lese yi mooy éliminé ki nga xamante ni nii mooy kaaw Cissé Kaw Gourdin bokk mooy noonu di jël misam Franc Libidor Franc roofaan na ngemb léegi Franc takk na ko Libidor génnaat na rasu Libidor daw na jël ko fàq na Franc fàq na ko Franc def trois appuis na Franc léegi mu def trois appuis Libidor Franc Libidor Libidor Franc Libidor jàpp na waaye Franc jàppul Libidor ko Libidor jël na Franc Libidor Franc Libidor Franc Libidor Franc Libidor am na ñaari loxo ci ngemb waaye Franc jàppul Franc na léegi benn loxo bi libi Libidor fa mu jàpp baax na Libidor fa mu jàpp baax na Libidor Franc mbokk yi ñoo ngi fii ci arène nationale cey làmb làmba ngi noonu Libidor Franc abit atte na léegi lu xew nee na ko ñëw leen ci digg géew bi Franc jël benn avertissement Libidor Franc Libidor Franc Franc dugg na lee génnaat moo ngi koy manœuvrer moo ngi koy manœuvrer Libidor Franc Franc ngay bëree Libidor ci nekk am nga sa loxo benn ngemb Libidor Franc mbokk yi Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production làmb jaangi noonu Franc Libidor ku ci nekk jàpp nga benn loxo ndengeñ taxaw di déglu Libidor daa jàpp ci sengoor yi ci sengoor yi la jàpp Franc dafa bëgg mu bàyyi Libidor Franc Franc kay puus Franc kay puus Franc moo ngi puus Libidor abit atana lu xew mitan Franc taalal ko sangoor gi abit baa ngi wax ak ñoom laaj na leen ku ne pare abit sifle na ci diggante Libidor Franc final bi yaa ngi wok Fallou Ndiaye mooñ fi woo tey bi di 4 millions mbokk yi Franc jël na tànk Libidor Franc jël na tànk ba Franc jël na Libidor bëreel abit atana abit bi atana Libidor bëreel ba abit bi bu la dóoree nga fay mbokk yi Franc kay puus teg na ko bopp di ko puus Franc Libidor Franc Libidor Franc bëgg na dem léegi Franc jël na tànk ba Libidor bañ Franc Libidor Franc ngay puus Franc ngay puus Franc Libidor Franc Libidor Franc mbokk yi moo ki nga xamante ne nu mooy Elimane Libidor daan Zambala demi final ñoom ñaari tase final final baa ngi noonu Zambala Libidor wala boog Libidor Franc Libidor Franc Libou door Franc ñoo ngi naxante mbokk yi arbitre atana waaw jox nañ avertissement ki nga xamante ni ni mooy Libou door dinañ ko taxawal nga bëre Franc koy accéléré Franc fàq ko daw jël ko Franc Libidor jël na tànk ba waaye Libidor mbokk yi dafa bañ Franc Libidor libi Libidor Franc fàq na ko léegi dafa bañ fran Libidor Franc Libidor fran Libidor Franc koy puus Franc koy puus Libidor boo xefee di nga jël avertissement Libidor Libidor boo xefee di nga jël avertissement Franc kay pousse stratégie la waaw noo mën a def ba gagné rek def ko Franc kay pousse Libidor bëreel Libidor bëreel Franc Libidor Libidor mbokk dafa mel ni ku sonn Libidor Franc du ko génnee di nga jëlaat avertissement Libidor Libido boo xefee di nga jëlaat avertissement Libido dafa mel ni ko sonn mbokk yi abit baa ngi ñëw leen nii waaw waaw di nga jëlaat avertissement abit sifle waat na Libido Franc Franc kay bëri lool daw na jël ko bu la wéyoon ndoom ba mu jeex Franc Libido Libido mbokk yi daa mel ni ko sonn Libido dafa mel ni ko sonn Franc Libidor Franc Libidor ñooy noonu ndenge ñante ci diggante Franc ak Libidor ku nekk ngi jàpp di déglu sa morom Franc pousse na ko léegi ba mu génn saako yi arbitre bi waat ko jox nga xamante ne nii mooy Libidor avertissement waaye Franc jàpp na Franc jàpp na oh atana dina ko ñëwal ci digg géew bi Libidor pousse na ko avertissement. jox nañ victoire Franc Franc jël ko par avertissement Libidor ngi noonu Libidor ngi noonu Franc ngi noonu mbokk yi Libidor dafa mel ni nanguwul Libidor daa mel ni nanguwul